tey di talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru octobre e, date yooyu nag li tax ma koy wax mooy pour wone ne ñi ngi ci liggéey bi te ci kanam lañ jëm itam maanaam saa su nekk ñuy def lu bees pour benn wahabi wala seen kilifa yi dégg jàpp ne dañuy répété ay mbir yu yàggoon wala boog ay son yu yàgg wala ojo yu yàgg leen leen di tegalaat yoo xam ne liggéey bu bees lañ nekk nii liggéey bi nag mooy lan mooy ki waxoon ne dafay woote jàmm jotu koo woote sax maanaam daa jot a wane ne kay faalewu ma kenn jot a wane ne itam lijjantiwuma leen Ah, ragaluma itam dawuma démonstration de force maanaam ki doon wax loolu jàmm jooju mu doon wax ci boppam bu ñu jàngatee téereem ba sonn duñ ko ci mën a gis jàmm jooju yar googu ñu koy waxal itam bu ñu jàngatee téere ba sonn tamit du tax ñu gis ko maandu gi suñ ko doon wër ci téere bi duñ ko gis dëggu gi suñ ko doon wër ci téere bi duñ ko gis bépp jikko bu baax boo ko doon wër ci téere bi doo ko gis téere boobu nag ñi nga xam ne ñooy taxaw ñoom itam di ŋàññi foofa rek lañuy roote kon nag bu ŋàññi yi tare rootukaay ba moom lañu war a seetiwaat fan yii ñu génn nag bis bu nekk ma wax la ne wax na ci tasawuf nàngam loo xam ne dangay dar sa gémmi da nga naan loolu nan la ko nit di waxee dinaa la dolliwaat beneen nag tey nit yi tasawuf yi ci li ñu jàpp ñun ak li waa ji wax ci grand théâtre bi moo dina sëñ diw moom ci sunna alxuraan sunna la doon woote ca la doon woote sëñ Tuubaa ci alxuraan ak sunna la doon woote ca la doon sonn coono bu mu amit ca loola la ko amee waaw sëñ Tuubaa moom sëriñub tariixa la walla lan la naam sëriñub tariixa la léegi buñ xasee sëriñub tariixa yi moom xasaale nañ ko walla déet maanaam suñ doon xas sëriñu tarixa bi tarixa yi ñuy xaj seeni seeni sëriñ dañ dañ ciy génne sëñ Tuubaa wala déet ah loolu de kenn mën na ko cee génne ndax moom sëriñ la te daa jiiteb tarixa kon nag buñ ne masaayixu turuqi moom da da day dugg ci biir saraax day dugg ci biir lay nekk ndax ca la bokk bu ñu waxee tasawuf day dugg ci biir ndax ci la bokk bu ñu waxee sëriñu tariqa day dugg ci biir ndax ci la bokk borom taqdisul asxaas nag ca jukki bu njëkk ba page numéro 346 boo ca demee ca kaw danga fa gis mu ne mashaayixu mashaayixu turuq sëriñi tariqa yi ñu laaj waa sëriñ tarixa loo bëgg a wax ci ñoom dañu fee nekkee woon comme li nga wax démb maanaam dañu fee nekk woon di woote ci yàlla di daawa ci alxuraan sunna di am coono yu mel noonu lool nga bëgg a nettali wala déet mu ne déedéet iqtasamul muslimina fii ma baynahum ñoom dañoo séddoo nit ñi ci seen biir woowul nit ñi de pour jëme leen ci yàlla de déedéet ñoom daal ci campagne gu gu métti lañ nekk ci taalibe ci mbiri taalibe seddoo nit ñi nag moom leen waaw seddoo nit ñi moom su fekkee ne dañ leen a seddoo ñii jël ñi ñii jël ñii ku nekk ña nga jël nga fexe leen a gindi won leen yàlla woote ci alxuraan ak sunna loolu baax na mu ne waaye defuñu loolu rakkazu julla ihtimaamihim ala daawati ila anfusihim seen yitte yépp la ëpp ci seen yitte ña ko def ci woote jëme ci seen bopp jëmewu ci yàlla de xam waa ji démb daf ne sëñ Tuubaa da doon woote jëme ci yàlla da doon woote ci alxuraan ak sunna da doon woote ci nangam ak nangam léegi fii nag te wax ju jëkk moo gën a nekk dëgg moo di ne sëriñ si ñoom woote wuñ jëme ci yàlla mais dañ doon woote jëme ci seen bopp wa diaayati li turuqihim di propagande nit ñi pour jëme leen ci seen tariqa am sëriñ bu nekk loolu mooy liggéeyam sëriñ bu nekk day fexe ba ñépp ñëw ci tarixam rek xam nga loolu daara du ci dëgg maanaam yow yaa xool li la neex nga wax ko rek te amul benn preuve tuuti bu mu ko teg lu dul lii moom a neex lii laa mën a wax man daal maa ngi nii maa wax lii kese mu ne loolu nag ñi ngi koy defee bi kulli wasilat mumkina bépp moyen bu leen mën a may ñu xëcc nit ñi dugal leen seen tariqa dana danañ ko def danañ ko def nga xam ne bu jaree sax ñu wax lu dul dëgg ñu créer ay histoire yëpp loolu la tuddee bi kulli wasilatin mumkina te ku nekk ci ñun xam ay sëriñ yoo xam ne ay taalibe ñëw nañ ci ñoom ñu yebal leen ci yeneen i sëriñ xam naa góor gu sant sa sàmb ca càmbeen muqaddamu ci alxaaji Maalik la sëñ Tuubaa la njëkkoon a gis sëñ Tuubaa ne ko sa sëriñ da nga taseeg moom ca gaar ba maanaam daat koy ñaanal yeewi ko waaw su fekkee ne nit ñi moom dañuy xëccoo ay taalibe moom kay loo ci tegtalee nit daan ko demal ca gaar ba sa sëriñ a fa nekk ñaata nit ñoo ñëw di jokk ci sëriñ sëriñ bi ne leen man duma seen sëriñ diwéy sa sëriñ du jeex du xaj léegi nag mu des beneen wax boo xam ne wax na ko ci beneen page quatre cent vingt moom ki nekkoon ci grand théâtre bu démb waa jooju wax na ci page 420 ci jukki bu njëkk bi ne inna man yataamalu fikra haulaai almutasawifa wa taalimahum allati yanchurunaha ala atbaacihim maanaam képp koo xam ne settantal nga xalaati niti tasawuf yi ak njàngale yi nga xam ne ñi ngi koy tasaare ci seen taalibe yi waaw looy gis dangay gis ne daawa la ci alxuraan ak sunna ndax dangay gis ne dañoo doon coono di woote ci yàlla lan ngay gis mu ne yudriku da danga xam bu wér ne anna hadafahum seen jubluwaay mooy lan mu ne nasxu shariati al islamiyati bi kaamiliha ñu nasaxal sharia al islaam bi ba mu mat sëkk sëkk sëkk bi taalimihim taxawal seeni njàngaley bopp yoo xam ne du sharia bi allati tamakkanu min iqnaai talaamidihim biha njàngale ya nga xam ne du lislaam nga xam ne dangay lislaam teg say njàngale loolu mooy seen hadaf te fexe caa convaincre taalibe yi nag ñu jàpp ca njàngale yooya nga xam ne du lislaam lislaam lañ fi jële teg fi njàngale ya wa badalu kulla ma bi wus'ihim ñu def seen kem kàttan lu ñu man min makrin ci ay pexe wa dahaa'in ak muus muus jaayum xel fi sabili nashriha ala jumhuril muslimin fexe ba tasaare njàngale yooyu ci ci mbooleem jullit ñi lii dal mooy mooy mooy mooy kiiwu gaay nit yi daal lii mooy seen jubluwaay mooy fexe ba nasaxal sharia na saxal sharia bi daaneel ko léegi tabax seen njàngale nag taxawal ko convaincre ci nit ñi ak lub ma mën a jaral mu wax ci suuf ne lam taqif muxaawalaatu nasxi ansaari alfikri alsuufi lilsharia inda xaddi isqaat takaalif maanaam mu ne ñi nga xam ne ñooy waa tasawuf nasax gi ma doon wax ne moom lañ bëgg a nasaxal sharia bi yamuñ ca de yamuñ ci nasaxal sharia rek te nasaxal sharia ñoom nañ ko defee mooy fexe ba dara waratu leen maanaam loolu tudd isqaatu nga xam ne ñoom léegi dañoo wàcceel seen bopp lépp lu yàlla santaane woon ñu génn ci yamuñu foofu de li leen waroon ñu bàyyi ko loolu kese nekkuñ ca loola kese de nasaxal sharia bi dañ caa boole di bañ a def li leen yàlla sant ñu bañ koo def ba noppi waaye walakinaha tanawalat al mahdurat alsharciya bil ibaxa maanaam yi araamoon lañ daganal yemuñ ca la waroon ñu ñàkk ko def lànk taxaw ñoom niti tasawuf waaye dañ caa yokk nag la araamoon ñu daganal ko wa fatxi abwaabiha amaamal muridin buntub yu yu araam yi ñu ibbi ko ba ne fànn nga xam ne ku bëgg def yëfi saay-saay ci ci taalibe yi mën nga koo def lii daal mooy image yu tasawuf ci téere bi di taqdisul ashxaas léegi nag façon ngi saaga yi ak wax yu ñaaw yi ak yu bon yi lan la mën a indi cim réew maa ngi la koy laaj maa ngi lay laaj itam ndax xam nga wenn saaga wu gën a garaaw loolu ci ay kilifa yoo xam ne yow démb ci théâtre ci grand théâtre bi théâtre nga fa ba wax fa ne ñoom dañ doon woote ci alxuraan ak sunna te fekk yow waxoon nga démb ne dañ doon woote jëme ci seen bopp te dañoo nasaxal sharia bi màbbal ko taxawal seeni njàngale te yemuñu ci ñàkk def lu leen yàlla sant waaye yañ leen tere sax dañoo ibbi bunt ma mu ne fàng ne taalibe yi ñëw leen ci caay-caay gi lu gën a garaaw loolu boo ko xamee nga wax ma ko maa ngi lay xaar wassalaamu aleykum wa